ki nga xam ne mooy Mina Saliou Penn ak ki nga xam ne mooy euh, Mamadou Ardo mamadu ñu ngi lay ziar bu baax depuis euh, Facebook live di ci nuyu sama benn xarit boo xamante ne Thione Seck rek lay bégee ñu koy wax euh, buur géwél yaayu Abis yaayu astu Thiam waaye yaayu yaayu Khady Diop maamu Mouhamed ah di ci nuyu nag ki nga xam ne mooy Yacine Fall Fall Yacine ak Fallou Dieng Fallou ñu ngi lay bégee bu baax yow itamit kontaan nañ ci yow lool mm, di ci béggal nag ki nga xamante ne mooy Fallou Galas. Dieng ak euh, euh, Lune ñu ngi lay nuyu bu baax Diarra Bousso Mboup ñu ngi lay ziar ak ak euh, Aysatu Amina Ngom Aysatu Amina Ngom ñu ngi lay ziar ak Astunian Astunias Aji Rasoul Mbay ak bay Diaw ak ay Aïcha Chacha Sou Mboup hmm, ak El Hadji Thioubou ak Seynabou Wilane ñu ngi lay kontaane yow itamit bu baax a baax Amadou Ba ak Pape Ousmane Diop ah yéen ñëpp ñu ngi leen di bégal ci Thione Seck bi nga xamante ne ñu ngi koy eh, jàllalewaat ni ngeen mën cee jàpp seen eh, capacaa tey ci 11h ci onze h 30 bi tey ci eh, tey le mercredi ah Medoune ah kon Aïcha mu jàll maawa yaa ko teree neex mi ci Thione boobu boobule am na solo dañu ciy bégal ki nga xam ne mooy Mia Diallo ak bay Diaw mi ngi ci Facebook live bi di ci bégal nag Rokhaya Sakho Hmm, Rokhaya ñu ngi kontaan ci yow merci beaucoup euh, ensemble bi sama benn euh, rak moo koy jaay Ah, na leen jox léegi incha allah numéro téléphone yi hmm, am na yeneen yu dàq yi ay di ci euh, nuyu tamit ki nga xam ne mooy nday euh, nday euh, Penda Sarr ah, nday Penda Amina kontaan nañu ci yow yow la ñuy bëggee saa su nekk zéro stress waaw man tamit maa ngi leen di bigga up saa su nekk zéro stress nday Penda ay ca Birahim Fall yow tamit ñi ngi lay bëggee ah Birahim yow tamit dundal je t'aime très fort ah merci beaucoup Birahim Amina Poté fii yaa fi nekk d'accord merci beaucoup kontaan naa ci Yacine Fall mi ko wax Yacine yaa ngi liiraat sa commentaire en direct ci euh, TFM bi ayca euh, ay Chacha maa ngi lay foon ummi xayri con sekk bi di ñëw yow laa koy may nee naa leen tey dañuy def spécial euh, rétro Euh, Thione Seck am na solo ndax ñoom nee naa leen euh, bay nañ seen waar ba mu pare te dara ñaawul te tey ku ci neexoon ci ñoom euh, dugg studio def single wala nga créer ay album te say fan sa ngi toog di la xaar ñi leen bëggoon ba tey ñu leen moo tax am na solo ñuy fàttaliku ñi nga xamante ne macha allah ñoom la xale yi bëgg ba tax tey ñoom ñëpp di wéy ay ca maawo bu fekkee Thione Seck boobu pare na rek pare na yokk ca Thione bi amoon na solo lool dañu koy jox nag Abdoul Sarr mi ngi ci Facebook live bi moom itamit Ah, di ko jox ki nga xamante ne ni euh, mooy euh, mooy Kiné Gueye Kiné ñu ni tamit ñu ngi lay euh, bégal ci euh, suñu biir xol bëgg nañ la yow tamit di ko jox ki nga xam ne mooy Babacar Faye ah ak Mor euh, Kouta Mor ñu ngi la koy jox di ko jox ki nga xam ne mooy Kole Diagne Kole ah. yow tamit euh, bëgg naa la lool ci sama biir xol bi hmm, yéen a tax ma yeewu tous les jours six heures du matin ah, wan sama doom yëpp gannaaw bëgg jàkkaarloog yéen pour di leen béggal saa su nekk parce que xam ngeen ne fii réew mi tollu ku ci nekk koo mën a bégal bégal ko te yàlla tax parce que àddina moo tëddee nii bëri stress bëri ay téq-téq bëri yu méttee méttee méttee ti mais nag nekk gaynde rek euh, bañ a tiit bañ a ragal bañ a deltu gannaaw nee naa leen affronter leen man bëgg naa euh, euh, jigéen buy affronter ay mbir ah dee leen affronter affaire yi te xam ne suñ borom moo nekk fépp ah yéen yéen ñi nekk ci marché yi di jaay yéen ñi nga xam ne ay employé ngeen ci biir kër yi bu leen xeeb sax ba ci bon yi ci kër gi dee leen affronté ku ci nekk xam nga euh, ni nga toll ak li nga mën moo tax nit day nekk gaynde njaay dee leen affronté seen life àddina nag pour mu neex il faut que mu metti ndax day am ay barrières te barrières yi la plupart du nekk ay objet ay doomu adama lay doon moo tax affronté leen seen life na métti ay ca Alima Sakho ñu ngi lay euh, béggee bu baax a baax ak Mami Si ak euh, ki nga xamante ne mooy euh, sama yaay ja aram wañ galo aram maa ngi maa ngi ma am ko am ok ne américain yi naan am ok maa ngi cool am very very very happy ah thank you so much aram kontaan naa ci yow maa ngi lay xëg ay ca di ko jox na ki nga xamante ne mooy El Hadji Cubb moom itamit coon sekk bii di ñëw dama ko koy jox Amina man fan su coon laa coon laa bëgg depuis ma nekk xale sama yaay tax ma coon bari nga ci ay morom ndax nee naa ko macha allah coon sekk ñi ko bëggoon tuxuwuñ deewuñ dawuñ te kenn waru leen ñi ngi toog moo tax ñoom rek lañuy ñuy bégal eh, saa su nekk maawa coon bi ci topp boo ma ko joxee dama koy jox kiñ naan euh, Marie Gaye euh, mi ngi ci Facebook live bi ak Amital ak Zeynasi Aïcha na neex ay coon sekk bi am na solo dañ ciy nuyu ki nga xam ne mooy Awa Ibu ah Awa merci beaucoup kontaan nañ yow tamit euh, Mado Diop ñu ngi ko ciy nuyu Kimo Bayo ah, ki moo ñu ngi la ci big bu baax a baax a baax mm, di jaajëfal tamit ki nga xamante ne nee naa la nit bu amee yaay am papa Euh, bu demee ba ci tollu am soxna euh, bu lépp baaxee ci moom euh, soxnaam la macha allah te ci tey résultat bi sénégalais yi àddina bi yëpp gis nañ ko parce que résultat bi mooy Wally Seck ak ay sëram ak ay frère am parce que macha allah sëy bu baax dafa am solo ah Kiné Diouf macha allah ku ko xool tey ba ñee ko boo xoolee nam mu woon coon ak ni mu ko doon toppatooyee ndax ànd ak artiste dafa metti ah Kiné nekkoon jigéen ju jàmbaare ah, nekkoon koo xamante ne macha allah. bu lii yëpp baaxee tey njàmbaaram la moom coon nag dañ naan ko chapeau ndax moom gaynde la gaynde njaay tigi la ah, waaye tey bu lépp baaxee dañ naan jeeg ba fa nekk chapeau ah, moo tax ki ne ñi ngi kontaan lool ci yow mm, di kontaan nag ci fan su Papa Thione yi nga xam ne ñi ngi ci Facebook live bi ñoom ñëpp di bind ku ci mel ni euh, Dame Ndiaye euh, Sidi Dame Ndiaye ñi ngi lay bëggee nee na man Papa Thione euh, rek laa bëgg ak Soda Soda Mariam caama ah, Soda Mariam Thiam yow itamit ñu ngi lay bégee Papa Coono la raw fuuf ah, mu nekk koo xamante ne nii euh, boo demee soirée mbékk waaye boo nekkee ci sa oto di ko déglu gën a kontaan waaye boo nekkee ci stress tamit di ko get da ngay euh, gën a free ah kon dañ koy ñaanal moom i tamit Thione Seck lu mu dund doyul parce que ñi ngi xaar ay yeneeni affaire ci moom parce que dafa am ñoo xam ne kenn du doyal ci ñoom dafa am artistes yoo xamante ne du ñu fi jóg seen mbir du xew yi te yàlla mooy mooñee noonu nit ah c'est que nag àddina moo tëddee nii dafa bëri ñoo xam ne peut-être du ñu nangu mais yàlla bu la mooñee li euh, Alaaji Mbay naan bu ma yàllaa ma mooñ ci neex moo tax nañ ma tuddee nexexee hmm, loolu dafay am nañ ko ko euh, nangul rek euh, ba tax na coon suñ borom moo ko mooñ ñii ci neex macha allah lu mu def mu neex nit ñi ba tax na bii di ñëwaat dama koy jox Collé Diagne xadi saax Diop ak euh, ki nga xamante ne nii mooy Marie Madeleine ñu ngi koy jox Marie Madeleine di ko jox El Hadji Mm, Demba ah El Hadji Demba ah, ñu ngi la koy jox di kontaan yow ci yow Thierno Dieng di ko jox Thierno Ndiaye mon frère ah El Capo Thierno ñu ngi la koy jox doomu ndayu Xaadim Cissé maa ngi lay béggee bu baax a baax sama frère bu bari jom la Thierno ñu ngi la koy jox di ko jox nekk Sinthia ah, madame Sankaré di ko jox euh, Moussou mi ngi noonu ci yoon bi di préparé di dem Kaolack ca gàmmuwaat ba xam naa ñu ngi la fay fekk ah, di ko jox nekk euh, sama rakk bopp déggéen la ñu koy wax Mm, dëggeen Thiam Thiam Babel Demba Thiam di ko jox Kumba Kumba maa ngi la koy jox bu baax depuis salon Amelia ah xale yi nee naa leen bu ngeen bëggee yu rafet na ngeen di seeti borom institut Amel Beauté nee naa la moo mën ci mariage moo mën ci ngénte ah moo mën ci ay euh, bés daal tey moo defar sax jabaru Ndoye Bane Ndoye Bane ñu lay nuyu de passage di la wax kontaan nañ ndax euh, tur boobu nga jël euh, tuddee sa doom ji nga xamante ne moom ngay tudd tey jox tur bi Déguène Chimère loolu for na lool ci ñun parce que macha allah am na foo xamante am na ñoo xam ne dootoo collègue ak ñoom ah nee naa ñu ni neen ci suñu biir du ñu am problème. ñu ni neen ku ci nekk xam nga ne problème amul souvent di nga mbëkkantee kenn nag waaye da ngay xam ne am na lu ne ca gannaaw ba tax na ñu ni neen du ñu am problème ba tax na ndoy ñi ngi lay ñaanal ah, sa doom yi nga am yëpp nañu màgg te barkeel ba jariñ la ci barke Cheikhul Khadim Mbacke ah, ñu nekk ci rek te ne gaynde nee naa la ñu ne ci rek ndax Cheikhul Khadim moo fees ci suñu dënn yi moo tax dara neexatuñu ci àddina moo tax Serigne Touba rek la ñuy dund ñun lii nii dañuy façonné nii rek ndax ñi ñu bëgg mais Cheikhul Khadim xam ne ne suñu dënn bii Serigne Touba képp a ci nekk te ku ñu jege xam ko moo tax dañuy doxal beneen coon bi dañ koy may ñi ñuy seetaan nekk ci Facebook live ak seeni kër di ay ca yaa ko teree neex na gën a daw Soda Lamine Soda neex na lool dañ ciy nuyu nag soppe coon sekk ndax coon nag dafa am ay doomu boppam nee naa ko euh, euh, Mariasine ba ma bëggoon nekk géwél rek ba tagg la ndax macha allah réew mi xàmmee nañ nag gaynde yi xàmmee nañ boroom jom yi euh, c'est que réew boo ci nekkee bañ mu tàkk da ngay xool ni mu gën a rafetee nga koy waxee noonu waaye coon ku ko xam-xam ni gaynde njaay digi la barke Cheikhul Khadim Mbacke moo tax dañ lay jaajëfalaat rek di la fàttaliwaat li nga fi defoon xam nga que la mën da ko du nangu waaye Thione sekk ku déglu ay musigam ak koo mënti di doon di nga yëngal say tànk wala it bu tànk bi yënguwul ñëpp gis ko it xol bi dana yëngu waaw coon moo demee noonu moo mel noonu ñu ci nuy nag ay soppeem di ci nuy ay doomu boppam parce que macha allah magum jëm yi ci réew mi danoo bëgg Thione sekk ku ci mel ni ñoom euh, Yacine Thiam ah Adja Coiffure kooku doomu Thione sekk la ku ci mel ni Buur Géwél ku ci mel ni Maguette Diop madame Adjana mm, ñu koy ñaanal yàlla yóbbu ko Firdawsi ah ku ajaa caam la woyoon woy bu rëy ba na Adja Thiam sama dooma ah nee naa la kon Adja Thiam Birane depuis Lyon ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di ci nuyu Ngone Jàbba ah Ngone ñu ngi lay ñu ngi lay ñaanal yow tamit ah, fa nga nekk gënal fi nga jóge ci barke Cheikhul Khadim eh, di ci nuyu ku ci mel ni eh, ku ci mel ni Vieux Guèye ah ñooñu ay njabootu coon lañ parce que siiw dafa metti boo siiwee dafay am ñu daw ñu bari ñu ñëw waaye nag coon nekkoon koo xam ne moom dafay segg xàmmee ba pare boole lépp ak pat ah xam nañ ko bu baax suñu papa suñu xarit la di nit koo xam ne nag référence la ci ñun dañ koo bëgg manaaw ci moom sago dama ko bëgg man nee naa ko duma ma déglu man coon kese laay déglu ci sama àddina ndax dama xam nga woy dafa doy waar dafa am musique yoo xam ne soxlawul sax ngay xaar di xam li parole bi di wax waaye day pénétrer dugg ci sa sang di dox ci sa dret man musigu coon day dox ci sama deret moo tax euh, dañu koy ñaanal gudd fan papa coon yow loo dund doyul ci barki Cheikhul Khadim Mbacke ay ca di ko euh, ñaanal nag ñi la bëgg ñëpp ah ñi ci Facebook live ku ci mel ni Soda Marem Thiam moom coon rek la bëgg ak euh, Binta Ndiir Binta ñi ngi lay fóon ah ak Laurent lo lo Lota ah Lota Dieng je t'embrasse très fortement si Lota Dieng ak Mm, ak Ndat euh, Baby di wax euh, joyeux anniversaire euh, benn tonton boo xam ne Euh, suñu tonton la waaye suñu jëkkër la euh, koy tonton Ablaye Xuma tonton Ablaye ñi ngi lay souhaiter un très bon anniversaire di la wax nga dund ba doyal hmm, chéri nday xujja nday xujja naaru yemoo nguuda ah yow sëtu màggaan biraan bi loo dund doyul waaye dañuy dem ba HLM 3 nag ndax dafa am jeeg bu fa nekk di sëyal jëkkëram nopp ko lool toog di ko xaar duudu borom Japon kon dañ lay nuyal Khady Cissé rek suñu mannequin euh, ex mannequin bu ñaawul boobu le di ko nuyul ay goroom ak ay njëkkeem nee naa dugg kenn gënu leen waaye yow mi fa wàccit kenn gënu la Khady Cissé maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa HLM ñoom Khady Ndoye ñoom it danoo bëgg coon ndakaaru ñoo bëgg coon àddina ñoo bëgg coon xale yi fi mu nekk ñoom ñëpp ràngatiku lañ ah ku ci mel ne Aïssa Sow maa ngi lay nuyu bu baax a baax ak euh, ki nga xamante ne nii mooy euh, mooy gay euh, gay ah, ñu ngi lay nuyu Ami Seck yow itamit ah ak Ndey Baara xule ak Jaloub Messa ñu ngi lay nuyu bu baax Sooda Marème waaye kenn du Sooda bu so ndax moom la coon woyoon woy bu rëy ba ne ko Sooda dégg naa yaa ngi teral yaay booy moo tax macha allah gis nga ko ah, ah? ak ñoom Fat Ballaago ñoom na Bàllaago coon dafa amoon lu lu lu lu doy waar loo xamante ne euh, coon mën naa ne bokk na ci wéykat yi tax artiste am famille ndax coon euh, fievam ñi ko doon topp public am ñëpp Bàllaago la ñu santoon ah ci la xale yi euh, jëlee ku ñu waxal ne la papa ah papa coon moo tax ñaanal leen ko yàlla may ko gudd fan mu dund lu baree baree bari te xale yi sax dañ koo soxlawaat ci biti coon il faut que nga génn dugg teel na ah paa yi dama bëgg ñu génnaat ñëwaat defaat ah nee naa leen émission bi léegi nii lay doxee ay retour rek la ñuy def di àndandoog yéen di leen wétali ci yor yoor bi ba midi 30 ñu daal di tàggatoo ay ca coon sekk bi ci topp dama koy jox ki nga xamante ne mooy Fatou Ndiaye euh, maa ko koy jox di koy jox nag ki nga xamante ne mooy Fatou kenn. moom la coon sekk woyoon woy bu rëy ba buuroo buur daale moom macha allah sëtu buur la fatlaay amadoog Boubacar kenn du yow yuq mi ci songum xeer ab Ablaye Wade sa maam la sa baay la ndax nee naa la ci euh, parti boobu nga bokk Ida sa nawle la sa cousine la moo tax yuq mi ci songum xeer yow la sa borom kër di dawal avion bu mag bile te fuuyoo bewoo reewoo nee naa la bërigo bu fees dell du yëngu danaan dégg toog moo tax Amadou Boubacar loo dund doyul kilifa yaa ngi ci réew mi mën lool nag te ne pat barki Cheikhul Khadim Mbacke fuuyuñ bewuñ reewuñ moo tax Fatlaay eh, lii may waaj a teg nii yow yaa ko moom dama koy ci eh, ñambaasal rek quelque personnes eh, ku ci mel ni Marie Madeleine ñi ngi la koy jox Hmm, Marie Madeleine ñu ngi la koy jox Adama Sarr ak euh, Adja Mbaye ah ak euh, Soda Marème yow itamit ñu ngi la koy jox ak euh, Maam sëy Fall ay ca Mawa Cissé bu fekkee boobu pare na rek ñu jël ko te ñëw nag tàggatoo ndax xam naa ne émission bi li ko olof di wax ah, lu neex du doy te ñu ngi ci cappaandaw li incha allahu rabbi dañuy dugal coon sekk bi rek nuy ci ñi ñuy seetaan surtout yéen ah, di leen wax ne leen ñafe leen ko. Euh, téye leen àddina moo demee nii waaye nag sant yàlla ndax ku xool li xew Chine xool li nga xam ne moo xew ca France ak yeneen dëkk yoo xam ne mënuñu ko euh, tudd euh, ngeen war a sant yàlla yéen ñi nekk Sénégal ah ndax nee naa leen ñu baax ñi ñi ngi fi te ñu baax ñi ba ñu fi nekkee nekk luñ fi kenn kudul doomu aadama yi kon nag gën leen góor góorlu nit nag pour yàlla defal ko jàmm il faut que mu am fulla am fayda am jomm ñett yi bu nekkee ci doomu aadama nit mën nga ko toroxal ak taaram toroxal ko alalam waaye kenn du ko toroxal ak fullaak faydaam ak digniteem moo tax jigéen ñi surtout man dama bëgg jigéen ñi gën a xam seen valeur gën a takk seen ndigg gën a xam yéenay kan bu fii rek di fële bu kenn jombale sa bopp jaay bañ eh, jaay jën ndax moo gën taxawaalu kon góor góorlu leen ngeen taaba taaba turki bagage dañuy ñëw xale yi di ko jëlaat di ko jaayaat ak feneen ak feneen ku ci mel ni sama rakk ji ah ma joxe numéro téléphone am ndax ñëpp a ngi may bind Amina. di ci nuyu Adja Lo borom Aminata Tour ah Adja maa ngi lay nuyu sama sista boobule ah moom macha allah ay ca euh, ensemble bi ku ko bëgg da ngay woote ci 77 544 92 66 ngeen mën a am ci ensemble bi wala yu dàq yi 77 euh, la 544 92 à 66 Adja maa ngi lay nuyu bu baax loo si rema ci ndaam Ndeye Marème Séri Moustapha Cissé Thione Seck bi euh, yow laa koy may nii ba pare xam naa damay tàggatoo rek euh, merci beaucoup Amélia borom ah Euh, merci beaucoup Amélia Borom Amel Beauté kontaan naa ci yow lool ah maam maa aussi mën nañu yokkaat tuuti rek ah gën leen a bégal ndax xam naa moom it Thione Seck bi euh, neex na ko ay ca man daal maa ngeeg yéen ñi bëgg lu baax nangoo affronter àddina àddina kenn xamul kañ lay jeex ay ci fin du monde lañ nekk ak catu àddina yooyu yëpp ay problème yoo xam ne la kenn maîtriser wu ko ndax yàlla day sàkk doomu aadama jël nit tabb ko teg ko ci kanamu ñëpp waaye du la dénk wër wërsëgam du la dénk nafsoom moo tax àddina kañ lay dem ak ku war a dem kenn xamu ko moo tax dund leen te am fulaak fayda nekk nag ay gaynde njaay ay ca man bëgg naa koo xam ne bu fa jotee fowal ba mu neex waaye nag mbir bu taxawee affronté ko te bul tiit ndax souvent ragal moo lay daane ñu xool coon bi ñëwaat let's go comme coon li mu wax bu lekk reer bi ba affaire yi dafa mel ni léegi mi ngi gën a changé parce que ni wujje ne ay ca waaw sama gars yi yéen ñi ci Facebook bi neex na de ah saf na ah? waaye tey da Fatima kontaan naa ci yow lool hmm, euh, kontaan nag ci ki nga xam ne mooy Fatou Gueye moom ma ngay fecc ca kaw ak loxo yi ak ki nga xamante ne nii mooy euh, Ndeye Anta Lay changé leen seen tur yi mënu ma ay yooyu ay xaw dañuy jël benn règle def ci a bu bëri tomb ak ay i yoo xam ne dix tomb lay am ñun on n'est pas des chinois alors ñu bind suñ tur yi ay faatu lañ tund kumba jóob njaay jaxate nañ ko bind normal suñ turi yu neex yi ay xaadim xoxoxo <laughs> non Sénégal la du Chine bu fekkee ñi seetaan ñu wax ñu ñu liir leen ay ca Kolla Jaañ ma nga ci yow Abdou Diop ah as Assane Cissé Assane xaba ak euh, Moustapha Moustapha Diop Moustapha Diop awa gay kenn wax gay yeey ay kon xaba euh, ak euh, Fallou Fall ay ca lu dul euh, tàggatoo ak yéen di leen wax ne leen yéen bëgg ngeen waaye ñun ñi taxawoon fi yeewu woon 6 heures du matin wan suñu njaboot jëpp gannaaw ñun ñoo leen euh, gën a kontaan merci beaucoup à Diouf mi ñu fi fekk mu doon euh, cadre émission bi ak borom Baxdaat sëñ Jili Jémé Jili kontaan nañ ci yow Mao Cissé merci beaucoup Massour mi takk micro yi merci beaucoup yow ak toog mu Serigne Fallou kon nee naa la kon continuer leen di seetaan télévision bi ci kanam dina gën a neex.